moo bëgg ñu waxtaan tuuti tant que vous n'obtempérez pas je cesserai pas d'arrêter la conversation dama bëgg rek mu leer man moom noonu laa mel dañ leen wootante pour waxtaan da ngeen yor mbir ma yor mbir ñu war a collaborer je pense que ni nous sommes la pour poser les jalons d'une franche collaboration mais je pense que la collaboration ne devrait pas être quand même hypothéqué d'avance par des comportement yoo xam ni vraiment xaaruñu ko fi wasalaam ca buur wax na lépp dañu bokk Sénégal ngeen am fi njariñ trop yor njaboot di dund ci lii ñu yor ay événement muy contenu kon dañu war a def benn synergie synergie boobu moo ñuy permettre ñu atteindre suñu ay objectifs mu waxaat benn mbir mu am solo man PAF su ma leen ne damay accréditer ay deux cent wala trois cent sites ça c'est pas possible et je n'y même je n'y pense même pas aujourd'hui dans l'ordre normal des choses li gën a jafe am ngeen ko muy une structuration de votre de vos regroupements vous êtes deux war ngeen mën a toog waxtaan am de mandataires d'une manière sélective ñu seet ci reporter yi tant de structures yi ñu ci war a accrédité au niveau des techniciens tant de structures yi nga xam ni war nañ leen mën a accrédité ñu discuter ci emplacement bi ak installation yi ba doo leen ma jéppi du ma leen jéppi man loolu mooy objectifu daje bi te it nous sommes assez matures ki dem ba jël ay millions wala des centaines de mille jënd appareil bi jaral ko bàyyi këram suba ba ngoon di wër mais c'est parce que vous êtes armé de courage d'ingéniosité d'engagement et de volonté pour réussir mais est-ce que cela veut dire que réussir aussi vos objectifs c'est déranger non donc président dama lay gërëm di la sant ci ndaje mi parce que bi ñu ko waxtaanee rafet rafetlu nga ko trop nga tàllal ma loxo ma tàllal la loxo moo waral daje bi kon léegi affaire bi neex na li may ñaan mooy président Bour man awma lu ma leen di xaj comme ni nga ko waxee à l'entame de vos propos man Sénégal moo ma ñor gis nga réew mi c'est pas pour le plaisir de vos beaux yeux moi je n'ai plus rien à amatuma lu may euh, nan laa ko mën a waxee loo xam ni mën naa ko prouver ci réew mi déedéet du ci sport du ci agriculture du ci jeunesse du ci développement bi am ma seen dugg see ci làmb ji nan la gaa yi def président ah non da wax ci kaw président njaboot gi la daw topp ko te chaque jour ñu ñu jooy ci loolu mooy benn mbër deux cent deux cent média mun ñu ko topp voilà ça crée une désorganisation ça crée de l'insécurité alors président loolu aussi dañu ci xaar nga jouer ci benn rôle sensibilisation ñu respecter consignes yi nga xam ni téye nañu ko fa arrêté nañu ko fa mais boo xoolee Eumeu Sène dafa dugg si rek lu waaye doon def ba nga ko di dàq mel ni kuy dàq lapin alors je pense que yooyu ay ale yàlla ci suñu ay collaboration nañ leen rafetal nekkin wi moo ñuy gën a jox personnalité gis nga li nga xam ni moo lay dundal muy affaire bi nu mu tudd caméra bi di téléphone bi ngay filmer nangam ak nangam boo demee ba toog teg ko toog ci say njaboot nga toog xam ni lii moo doon mooy sa arme pour que nga mën a am indi loo indi sa kër da ngay xool lii ni nga ci nekkee nan la ak naka la est-ce que vous me comprenez Nous ne pas en classe ni en amphithéâtre pour se donner des leçons. Non. C'est à partir des, constants, euh, des, des constats que ci la ñuy évoquer sujet bi yéen ñëpp ñooy nekkandoo chaque samedi chaque dimanche ak ju yeneen événement bu amee mais nañ leen xoolaat mbir mi honorez votre président parce que bu mettee moom ngeen di yónni ci ñun moom lañuy ñuy gis Parce que ne peut pas, pas parler à tout le monde, ce n'est pas possible. On ne peut pas discuter avec tout le monde, ce n'est pas possible. Bien mais vous devrez quand agir en groupement ou bien en association. kon dafay jaadu ñi ngeen jiital ngeen honoré leen nan ngeen leen di honoré seet liy yàq ak liy ternir image par vos biais de vos actions ngeen moytu ko loolu laa gis te du man rek maa ko gis nañu leen rafetal nekkin wi rafetal ànd bi parce que nekkin bu ñaawee rek ànd day ñaaw maag yow bu ñu bokkee bool bi nii tey jii nii war a lekk laax nga jékki-jékki comme ni ko doon defee jamono sëlëm kenn wala xam nga def yenn affaire yi mais suba bu ñu pour ñu mën a toogaat day jafe grosso modo loolu mooy équation wu waa làmb man nag promoteur laa di président wu promoteur fàllu mu ngi ñëw yëkk mbay yëkki ni mu ngi nii bisu travail la leen di dafa metti pour wan leen rek cër bi ma leen jox bis bi seen président bi ko jàpp bis bi ak waxtu bi kii moo ko jàpp dama ko ne seetal bis bu la arrangé nga wax ma ma convoqué ci man danaa wut hôtel boo xam ni di nga fa dugg di nga ne ci jàmm doo ñàq dara du la sonal nga toog ñu waxtaan waaye nag lañ fay jëlee na doon tënku gor je vous aime bien ça veut pas dire que je vous laisse tout déedéet dañu fas yéene ànd ci benn événement nañ leen ci ànd ànd bu set incha allahu rabbi loolu dafa may dugal ci organisation làmb bi làmb bi dañuy jël police dañuy jël gendarmerie bien que mosu fa am parce que boo leen seetloo ba ba ci làmb fàllu njaay bu mujj bi euh, porte nañu préjudice ñi nga xam ni sax ñëwuñu ci làmb ba EDK ba ba biir ba arène nationale oto mënta circuler ci rek suñu ay bëgg bopp bëgg-bëggu bopp ak suñu ay comportement bopp dafa naa ni Babacar bii sax fekk na ma ci embouteillage bi président affaire bi metti na ma ne ko ah xam nga ñun li ñu yor moom yàllaa ñu natt ñii ñu ngi nuy gërëm mais ñii ñu ngi nuy ñaan yàlla parce que li mu indi moo bari waxuma la nag fu Siteu war a jóge dem làmb waxatuma la ci dara mu ni la damay dox dem làmb ja doxu Siteu caaro yi jëm Pikine waaw loolu àdduna bu tukki la alors dafay jaadu ñun ñu waxtaan ci suñu biir xool quelle est la conduite à tenir neex na trop maa am buzz maa yor noo leen ko sax euh, affaire bi bi ngay njëkk a jot am na noo leen ko tuddee maa yor scope bi scope bi maa ko yor nangam mais d'accord mais na rafet mais Siteu ne bëreet kii këf téléphone bi fàtte la ñu waxtaane woon ci hôtel Colonia ba du wàllu gorde président dana danañu ànd ci arène bi bis bi may def sama visite de sécurité damay ànd ak yow on fera des délimitations pour toutes les structures man nag damay dem ci làmb boo xam ne yombul ci man damay jël sama matuwaay yépp du ma seet lu neex ma sàmba lu neex ma paate reetaan beeg caaxaan bi yépp fii la yam de dama leen di wax lu leer danaa ànd ak moom ba ñu définir ne président fii la gaa yi war a toog fii la ñu war a defar ba nga ni ma gongo ma ni la lal lal laaj nga ni ma lii lay laaj ma jël ko defar ko teg ko ci sa loxo leneen lu ci beneen reporter dugg ça ne m'engage nullement ni de près ni de loin j'espère que loolu mën nañ ko valider salaamaaleykum <coughs> euh, ci programme lutteur yi incha allah fii ak euh, semaine bi di jeex dinaa def une coordination j'ai même les éléments mais il faut que ñu make sure ba lu ñuy wax du am benn mbir boo xam ne dina ko déplacer tuuti dinañ leen wax ngeen dem jëli Papa Sow danaa ko wax mu ubbil leen buntam entraînement parce que nag mënul di wuyu euh, reporter bu nekk c'est pas possible je vais organiser benn rencontre spécial boo xam ni dana leen recevoir ngeen daje ak moom waxtaan ak moom bu leen neexee sax ñu yokk ci boo leen bëggee yendu ak moom affaire bi rafet danañ ko organiser ak Siteu incha allahu rabbi ngeen nekk ak moom bu ñëwee ngeen def li ngeen war a def affaire bi rafet. am na benn dernier face à face boo xam ni danañ ko def ak ñoom aussi bu ñu paree ci loolu li koy tëj triplex lay doon ak ITV 2S Papa Sow day toog këram. Siteu toog këram man ma dem ci benn bërëb maag parrain bi walla ak sama ay nit ah ñu waxtaan ak àdduna loolu mooy ñett ñetti programme yi nga xam ni moom la ñu fas yéene déroulé man sax dama jëloon décision pour wax leen dëgg rek dootuma dajali ci Siteu ak Papa Sow coow li doy na sonn naa ci doy na sëkk man kañ fu mu nii li ñu waxoon rek en route

jërëjëf alaaji Cheikh waaye sa daanu bi démb terrain metti na démb nee na da doon sport waaye dañu jekki-jekki rek gis cuukeel bi ci suuf waaw donc loolu moo doon xorom si moo doon sarax si waaw PPV bi damay ñëw waaw mu ngi ñëw waaw bi mooy mujj parce que da ko évoqué lan la c'est euh, beneen bi ci des mooy sécurité bi euh, gënuma leen xam ci réew mi ngeen dëkk dañuy dem ci làmb boo xam ni metti na metti goo xam ni yéen boo leen tëddee yéen a ngi nelaw miñ man nelawatuma da ngeen wax baax moo ñu taxa fas yéene jël lu mu dee dee trois cent policiers trois cent gendarmes police ci biir gendarme yi ci biti ak fas yi parce que boo leen xoolee pour tour estade bi ak buntu yi niñ ciy duggee parfois coonoy lamb yépp ci entrée yi la ci ñi mënta dugg buur jël otoom yàpp ci ñetti nit ni day dugg buñ dikkee ñu war a contrôler ñooñu ana seen passe noo buur laa àndal maa koy téel ordinateur bi maa yor jaag bi war a def direct bi yooyu yëpp gaynde nañ leen ko bàyyi te ko suuf ngeen yombal seen bopp liggéey bi mu yomb parce que man Alaaji abdu wax naa ko bërki démb benn président bu newoon ci làmb ji mu ñëw mu ni ma policiers yi nangam ak nangam ma ni ko promoteur bi bu xasee ba fay pa fay alkaat yi la commissaire ba di décider ak ay nitam man awma ci droit wax ci kon nañ leen yombalante liggéey bi nañu leen bàyyi bàyyi aussi di paasante badge yi am na ci waa presse bi ñoo xam ne danga leen di jox badge ba pare ñu wëlbatiku jëlaat badge yi dem ci grillage yi joxe ko wala yóbbante ko nit mu jox ko Cheikh Ndiaye ma la Cheikh Ndiaye ñëw dugg ci ñëw toog fekk ñun xam nañ lépp dafa fekk ni as gor kenn du ko toroxal waaye nag ci kaw mu gore bu dee dégg ngeen wolof nit mooy sagal boppam nit mooy suturaal boppam mais nga ñëw ni dañ lay jox accréditation ñu jël jox sa président accréditation ñu jox la sa bos nga dem jël ay ak sa xarit ak yépp parce que seen benn waaye dóor na leen benn kóol nangam ak nangam am kenn koo leen yónni jox ko ko kooku dem sol ko daal di ñëw amul njëriñ c'est du vol tubaab a ko tudde wal wolof di ko tudde sàcc la waaw bu demee nag ci contexte bi ñu liggéey gore di la ak mbaadoo la ak ñàkk kóllëre donc ñu moytu yu sew yooyu sécurité intérieur bi xaadim njaay mii ku ko xam-xam ni mook alaaji Pape Abdou Fall benn kii dama leen di wax sama diggante ak moom du làmb kii yaayam mu ngi ci kër dëgg maa ngi fii ci àdduna moom ma ko dénkoon avant muy làqu ak mon ami mon frère Pape Mayel Diop ñoo tax kii ma jàpp lu ma am danaa ko bokk ak moom lu mu am danaa ko bokk ak moom fu mu xewlee dina ma gis ci wetam fu ma xewle it fu mu nekk danaa ko woo mu ñëw taxaw sama wet yàlla nag da koo dimbali mu nekk làmb di liggéey digganteem ak askan wi rafet ba mu am ci nit ñu baax tey mu créer société de sécurité am ñu jox ko aéroport mu yor ay business yu bari moom laa fas yéene jël ci sécurité bi nga xam ni mooy sécurité locale bi taalibey xaadim rasul bi bu ñu jàllee ci loolu làmb bi buur wax nga fi lu am solo muy problème mu pay-per-view pay view loo xam ni lu ñu dab la ci làmb daf nu dab force et de reconnaître que dab nañu ñu ngi ciy liggéey mais du parti yépp a ko maîtriser euh, am na lu ci xew évoqué nga ko yàlla xam na ni tey laa koy door a yëg man du ma fenal mbindeef buy dox ci suuf parce que kenn yorul suma dépense <coughs> ah wax nga insha allahu rabbi ñi ñu ko seqal danañu toog ak ñoom waxtaan ba loolu nga xam ni mooy seen préoccupation ñu waxtaane ko mu dañ loolu man alaaji Abdou Fall bu ma la nee xaw ma làmb keneen mi sama làmb saafaraw sama làmb mënuma leen ni doo leen def direct làmb gi jeex mais man awma droit bloquer seen instrument de travail jusqu'à minuit pourquoi et sur quelle base

jege naa ko sori naa ko mooy maa ngi ci làmb mais dama nekk ci yeneen i activité lii nii maa ngi koy door a yëg nii Cheikh na Cheikh Saad bu nag laa lay waxal ki ma ko seqal danaa ci waxtaan ak moom ba du loru te doo leen loru loolu defe naa ni bu ma leen ko waxee war na leen mën a doy lu dëgg président man nag loolu laa amoon ci lu may wax entrée yi entrée yi yomb la ñu def Cité Popar Sow euh, jaune et vert mille francs la rouge bi cinq mille francs la rouge annexe bi 10 000 francs VIP bi ñu def ko 25 000 francs donc euh, à travers aussi notre rencontre je tiens à saluer voire même remercier encore mes partenaire ñenn ñi sax bu ma leen remercier sama bopp laa remercier parce que dama ci bokk muy la banque agricole du Sénégal muy banque boo xam ni damay wax ni développement ak askanu Sénégal la fi nekkal ku nekk war nga fa mën a dem ubbi compte ci mbay mi lay yëngu di accompagner jeunesse bi di jàppale askan wi te mooy seule banque nationale du Sénégal kon damay invité sénégalais yëpp ñu daal di ciy dem man nag dama faa bokk ñoom it ñu am benn solution bu tudd agricash agricash moyen la comme yeneen solution yi nga xam ne day permettre ñuy jënd di fay di denc ah di maye di leble kon dama leen di invité encore ngeen télécharger application Agricash dina leen permettre ngeen mën a jënd seen billet làmb foofu danaa fa taxaw man sama benn billet jaayuñu ko avant làmb billet yëpp dañ koy jaay ci guichet bi donc képp koo xam ni gis nga billet avant làmb PAF production jàppal ni c'est pas un billet valable. waa le degré de responsabilité de la personne qui vous l'a vendu je ne suis engagé ni de près ni de loin dans cette affaire-là. J'en rajoute que, à part la Banque agricole du Sénégal, yaa y a Jojo mën ngeen dem ne ñëpp dem jëndi fa ay meubles la fa jóge yëpp Amérique la jóge waaw dara nekku fa cere bien que cere lu baax la ci réew mi waaw di raf di gërëm aussi hôtel bi ñu dalal hôtel Colonia hôtel bi aussi sénégalais bu am jom bu am fulla bu am fayda moo ko moom te yoru ci it benn c'est un ami Traoré Pathé Baldé suma gars yi jàpp leen foofu la rien n'est impossible waaw gëm rek fi nga tegu ñi fi ñëw ñëpp ñu leen jox ñuy tabax hôtel gënuñu capable les Sénégalais Sénégalais yi gën a gëm seen bopp surtout la jeunesse gëm leen seen bopp affaire bi yéen ñi ñëpp yéen ñi ma wërale caméra yëpp excepté les deux grandes télévisions boo leen gëmul woon seen bopp boo leen amul woon engagement détermination tey jii nii caméra yi yëpp jël ngeen ko dugal ko ci géej gi parce que li ngeen yor ay millions lay jar dem ngeen ba toog wéet ak seen bopp sangu tëj bunt sangu njaganaayoo sa loxo xam ni lii njariñ la moo tax seule la persévérance paye si vous n'étiez par reconnu je di bien si vous n'étiez pas reconnu vous n'allez pas mériter d'être rencontré am de président kon wéy bi ngeen jël mooy wéy bu baax bi waaye yor bu baax bi aussi dafay induire que ñu ut benn doxalin bu rafet bu baax boo xam ni day gën a renforcer crédibilité wu structure bi nga xam ni moom ngay gouverner. elle bien être dans une bagnole wala nga ñëw solo ba rafet mais boo waxee gars yi am na ñoo xam ni mobilette la ñuy yor mais bu ñu rombee ñu ne gor saa ngi ni yàllaa koy def ci nit kon gën leen a yokk la crédibilité de vos de vos institutions les institutions que vous gouvernez parce que institution ngeen yor société ngeen yor moo tax ngeen am dépense ci kër ga kon rafetal leen seen àndandoo rafet leen seen rafetal leen seen nekkin rafetal leen seen teewaay ci ndaje yi ngeen fexe ba bu leen jëppi kenn bi bu leen kenn jëppi looloo waral suñu ndaje bi defe naa ni j'ai été bien compris yaa aussi ma sœur directrice générale de ESEF ko xam Khady Diop Sow xam ni moom moom ESF entreprise Serigne Fallou nettoyage parcelle la dëkk c'est ma dañ ci bokk jigéen la mu ngi def lu rafet lu baax di raxas hôpital yi di raxas jumaa yi def lu baax kon dañuy ñaan yàlla jàppale ko ba ESF gën pick up dem ci kaw J'en profit aussi pour euh, remercier mon ami, mon frère Yougo Sow, qui le directeur général de la Socosim. Socosim, xam ngeen moo tabax Sénégal ku fi ubbi ba pare rek ku fi ubbi léegi rek après la rek waaye li mu yor mooy bu baax bi.